man mii demuma seeti kenn ne ko ñëwal amut demaguma seeti kenn ne ko ñëwal parce que man jàpp naa ni la nga jàppoon commencé ci zéro ba yàlla jox la 54 pour cent boo ci wéyee egg 80 pour cent man loolu laa gëm moo tax demuma seeti kenn ne ko ñëw la waaye ku xool ba xool ba ne mbir mi doy na ma te nga remplir charte yi ma wax mooy amaguñu fu ñu la téye ne def na lii ci réew mi ci loo xam ne lu ñu épingle la ci ay rapport ñaareel bi mooy xaabaabaloon woon ca jamono adversité mooy ñi nga xamoon ni dem nañ ba jàpp ni ñoom ñun ay ennemis lañu ñu ne ñii il faut ñu faagagal leen il faut ñu rey leen ci kàddu gu ñaaw ci jëf ju ñaaw ak ci di ñu pexeel di ñu dóor di ñu tëj ak di ñu rey bu dee loolu amut man jàpp naa ni sénégalais bu gis boppam ci liggéey bi boo ñëwee ne damay jàpp ci liggéey bi man awma ci problème tekkiwul nit nañ la jël teg la ci kaw ñi fi ne waaye duñ la itam ne la doo ñëw loolu dafa sama discours la bu yàgg te leer na nañ ñoom nag lii seen problème parce que ki ñëw ne day ñëw jàpp ci liggéey bi bu ñëwul jàpp ci liggéey bi ci Pastef day dellu ci ñoom rek loolu nag mbir mi nit ñi ni ñuy faqee parce que newuñu ci dëgg gis nga ànd ci dëgg bu ngeen demee ba ñàkk sax kenn ku ne day am ngorom ne man ñoo àndoon ba mbir mi jeex damay des moo tax ñun tëjuñu suñu bunt waaye du lu ñu soxla ñun pour am egg fi ñu bëgg a yegg loolu tam leer na kon ñoko ko déggandoo nee dawul ci ginnaw kenn demul seeti kenn mais ay nit nak suñu démé ba ñew mu xol ni que ñi seen loxo set na duñu won ay ennemi projet bi mais ay adversaire projet bi la dañ leen di duggal ci biir en tout cas dina laalé dina marté du marté war ko jox sa loxo da nga taxaw ci kanamu sénégalais yépp nga ne du ngeen d'accord benn transhumant bërki démb nga ko wax 24 mars su passé fu way toogoon na fa toog kon tey waroo ñëwaat di war naan la lekkaat li nga xamante ni yaa ko jotoon wacc mooy li may wax rek déclaration politique la ci biir loolu nag yaakaar naa ni tey ji waruñu woon nangu benn transhumance tey transhumance ci beneen parti sax baaxul transhumance soo demee ci dictionnaire maanaam mooy lan mooy ay bétail yoo xamante ne dañuy migrer benn côté dem beneen côté maanaam da jàppewuñu leen sax ay nit maanaam ay xar lañ leen jàppee tey daal mi ngi jéem a justifier di daganal li nga xamante ne mooy transhumance mais ku daganal li nga xamante ne mooy caisse noire dafa xaraam tey ba ñu dem ci caisse noire war ko transformer en caisse secret kooku su daganalee ci biir loolu nag yëkkati na fa benn kàddu mais kàddu boobu mu yëkkati nag yaakaar naa ni sénégalais yëpp la jaaxal sénégalais nag ñi ngi laaj moom kan lay waxal nañu seetaani vidéo bi dellu si waat xew ci campagne bi xam nga lu mu firnde mooy sénégalais dañuy toog di seetaan télé benn waaye di wax a wax a wax ku nekk toog ne waajee mën a fen waa ji nag foog na ni moom moo fi mu ne nii convaincre na sénégalais yëpp nee na li xew ci campagne bi mooy li jaaxal ñëpp sénégalais yi dañuy toog di seetaan télé jàkkaarloog benn nit mu taxaw di fen di fen di fen di fen di fen ba foog ni convaincre na nit ñi alors ko sénégalais yi xam nañu kooku moo dàq fen ci àdduna sénégalais yi nag ñi ngi laajte wax ji kan moo ko moom ci campagne bi.

ak kan moo moom lii tey suñu xoolee ci campagne bi ñi fi jot toog di wax yëpp kan moo ci taxaw di fen fen fen yoo xamante ni sénégalais yëpp xam nañ dafay fen en tout cas mooy li may wax rek nit parfois di nga wax ba làmbab li nga moom nga ne bii du sama bos ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo toujours <laughs>